barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare euh, di leen nuyoo nag ci kàddu soxna Aïda Saliou moom Serigne Béthio mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Mbacké ibnu Serigne Saliou mu yàgg fi lool moom it te ànd ak wér buntam ci Serigne Saliou. mi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp te di leen yëgal ni kàddu yi dafay sori waaye su fi nekkoon mooy jàkkaarloog taalibe yi waxal leen ko boppam kàddu yi nag weesuwul ndigal li nga xam ne moom la Serigne Mountakha digle ci màggal gi nee na mi ngi koy yeesalaat ci mbooleem kum àndal te di la wax ne lépp loo xam ne Serigne bi digle na ko mi ngi koy salaat ci taalibe yi tey digal ñëpp ñu tënku ci waaye lépp loo xam ne Serigne bi tere na ko. nee na mu ngi koy fàttaliwaat bi yëpp tey ñaan ñëpp wattandiku loola te sori loolu te di yëgal ñëpp ni moom day ci li mu ne mooy ci li nga xam ne moom la sëñ mun Muntaxa digle ci ñu tërale ko màggal gi fas yéene wu cee yokk dara te fas yéene wu cee wàññi it dara ngir dëppale ko ndigalu sëriñ bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi loola nag bokk na ca mooy col colin bi mooy colin gi foofu ci dëkk bi ndax naka jekk loolu moom ndigal la loo xam ni du puus te du randu kon mi ngi salaat ndigal loolu waaye bokk na ci nag li nga xam ni moo ci spécial muy màggal gii ñu nekk ak contexte bii ñu nekk loola nag dafa tax ay ndigal yu yees wàccaat lu mel ni di takk masque foo waaye lu mel ni distance distanciation yi muy di soriante lu mel ni benn rassemblement muy mbooloo ndax contexte bii ñu nekk permettre lool kon nee na mi ngi fàttali mboolem mbokki taalibe yi ndigal loolee. waaye bokk na ci it lépp loo xam ne tere na ko rek nee na tere yi moom ku ne xam na ko lépp lu tere rek nañu ko wattandiku te xam ne moom day moom soxna Aida Saliou ci loolu la ne li ci des nag moo di màggal gi kat ci lii la tëggu mooy di rendi tey bernde waaye njàngum alxuraan mi nee na mi ngi yeesalaat loolu ci taalibe yi ñu gën koo fanoo te gën cee nekk naka jekk nag njàngum xaside yi yi nga xam ni ci lañ mës nee na mi ngi yeesalaat loola te di ko digalaat taalibe yi te ñu gën cee sóobu te gën cee nekk tey ren di tey bernde ni ko Serigne Touba digle nee na loolu yi lépp nag bu nu ko dajee def ko ñi ngi koy dëppaleeg nag ni ko Serigne bi bëggee te loolu kat moo di taalibe ba tax na mi ngi yee salaat loolu dafay sori waaye bu fi nekkoon moo koy waxal boppam kon nee na taalibe yi bëgg na kenn ku ci nekk nga dégg kàddu gi te gën cee nekk te xam ne moom day soxna ay Aida nee na moom ci loolu la ne li Serigne bi digle ci la ne. li sëriñ bi tere te di ko wattandiku wattandikuloo képp koo xam ne rek yaa ngi déglu kàddu kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi koy ñaanal moom soxna Aida mu yàgg fi lool te ànd ak wér